maa ngi tudd trésorière groupement des femmes pour le développement de Diourbel GFDD. Euh, lan moo wara tay sen dajé fi centre culturel. centre culturel li fi waral suñu dajé bi moy dañu bindoon ci wéri ci si ben projet mu tudd dolel jigen, si gox-goxaadi méngoo ak euh, ci li ñuy nekk muy élection yi ñu defoon ci formation de deux jours. Euh, premier jour bi ñu ngi euh, la loi sur la parité euh, ak yu am ci code électoral bi deuxième jour bi ñu def technique de communication pour que bu nous di wax ak nit ñi ñu nous nu déglu mën aussi suñu message mëna Nous ñu def après formation nous ay causerie ci lu tollu ci 12 manam fukk ak ñaar dem ci gox yi si Diourbel yëpp dem ci quartier yi ci sous quartier yi ba ci waxtaan ci projet boobu muy projet de euh, boobu de loi boobu muy la loi sur la parité ak doole ji am actuellement ci élection yi parce que tamit dañu seet ne jigéen ñi liñ leen dooleelee ci sunum réew xëy na jigéen ñi ñoom message yooyu jàllul ni mu war a jàllee si ñoom mais avec les causeries yi ñu def gis nañ ni vraiment jigéen ñi soxla nañ loolu soxla nañ ko te aussi déglu nañ nu dégg nañ nu wax nañ nu ñoom it seen leunt leunt wax nu seen métit et aussi ñu waxtante ak ñom ba yaakaar naa ni fu ñu jaar ñom euh, bu euh, décision jotaté dinañ xamné goor ak jigen ñoo fa tolloole. xalaat boobu fan leen dëkkale ak yan jeexital la waaw euh, groupement des femmes pour le développement de Djourbel ñun ay jeunes lañu yo xamné dañuy tok di xalat parce que def nañ fi yaakaar naa yeneen projet def nañ fi.

te ay jigéen lañ ay jeunes lañ buñ ko waxee jigéen ñi dañuy dégg dañ ciy am aussi njëriñ xam nga jigéen lu muy am njëriñ ci suñu dëkk bëri na mais xëy na dafa xamul parce que information bi parfois dëgg la du télé ñëpp ñooy am jot di ko seetaan du rajo ñëpp ñooy am jot di ko déglu mais ki nga dem toog mu toog ngoon nga dem wax dajale fanweeri jigéen lañ doon ciblé day am jigéen sax am góor mais fanweer lañ doon ciblé

mooy nga dem toog ak nit ki peut-être ngay wax ak moom jox ko bu fekkee da nga am sa ay um, flyers wan ko mu xool bu dee ku jàng mais bu dee ku jàngul nga wan ko ay uh, image pour que moom mu xam ne lii àqam ak yelleef la parce que jigéen ñi jàng ak ñi jàngul ñoo yam ku ci nekk am nga sa àq ak sa yelleef te fi ñu nekk nii affaire bi nekkatul foofu ci gëm-gëm la ak bëgg ak surtout xam xam nga bëgg ak gëm doyul mais bo xamé li la sa yoonu dëkk may di nga mëna avancer ci lu bëri ci loolu lañ doon dox. vous avez un grand projet non lan mo leen ci accompagner ci wala moyen. oui projet bi nak bi ko bindé parce que ñun projet yi ñu jotté bindé bind yëpp dafa am benn partenaire bu ñuy andal muy voix leadership des femmes au Sénégal VLF mom mu and ak ceci Canada wax dëgg yalla parce que bëggunu won di def ay yenn yi mu ñuy sonal te ay jeunes lañ.

Séné surtout Djourbel, na ñëpp déposé pour que ñun ñu ëppale raison yi yëpp. Mm-hmm. parce que bu Djourbel ñëpp amé, dafa mel ne groupement des femmes ñu am parce que ñun lii suñu sañoon day law groupement yi di am lu ñu def xam-xam bi di law si jigéen ñi jigéen ñi liggéey parce que wax dëgg yàlla tur wuyu na groupement des femmes pour le développement de Djourbel. développement de Djourbel, rek la ñuy dox doxunu lenen di ñaan yàlla mu katanul na si. est-ce que vous êtes prêt de rencontrer tous les candidats je peux dire. Oui, tous les candidats, oui. non, parce que nous politique nous, pour dire vrai. Politique nous, sommes ànd ak parce que les jeunes lañ une vision vraiment vision liggéey am mais pourquoi pas les candidats parce que les listes sont paritaires et day am ay candidats qui ont dikk xëy dinañ la wax lo xam ne ko gëna xam jigen ñinga andal gën qu'on xam su ko liste bobu majoritaire bobu gagné wala proportionnel bi ah jigen gu am ci sa ak sa rek.

na ko jaral ak lu mu mënti doon lo xat kat parce que vote moy priorité parce que ki yor sa deuk yor ko ay at ben jour bi ngay perte pour voter kooku yaakaar ni ne sa vote mo ëpp solo loolu kon na ñepp vote appel nak wax deug yalla ñuy wo ñepp ci calme parce que tamit violence fajul réew mu yàqu violence ko yàq te suñu Sénégal gi xamuñu violence xajuñu ci violence suñu Jurbel bi ak dëkk yi ci Sénégal yi xajuñu ci violence li nu xaj mooy votel ki nu am yaakaar xam ko ne ko li ci dëkk bi surtout di gëstu xamal ne ko ñun xam nañ lépp li ci dëkk bi pour que kooku bu toogee mën nu bàyyi xel lu mu bëgg def dañuy xalaat lu mu bëgg a wax dañuy xalaat loolu daal laay ñaan ñëpp yàlla may ñu élection yu jàmm élection yoo xam ne suñ borom da ci wis ndox mu sedd kii yàlla tànn mu tànn ko ci jàmm moom it mu gën ci gox bi loolu la ñaan